Mbackiyu Maymunata Maymunatu Mbackiyu

ni daf koy andi na ko lii dama koy barkeeloo ci yow sa baay moo daan wax lu ko neex mu am damay bëgg ñi nga xam ne dañuy ñëw ci laylatul xadar ji ñuy gudd fan te wér di fekki déwén wax na ko njabootu sëñ Basiru Sarr fii bañ ko ko waxee ak léegi kenn ñëwul ci ne ko diw bàyyi koo def kon nag nee na moom la leen di dénkaat ba ñuy dem Màkka 1968 bàyyam maam Cheikh Anta da ko ne woon ruu yaa ngi nii mu ne ko garanti naa ko dem ak dikk kenn du wopp kenn du kon nag ne la roo yaa ngi nii. naka waxaat rek. nga garantel ko sa barke sa barke Mbadiane ñëpp fekkewaat ci barke Serigne Touba soxna si nee na xolam sedd na daayira fii nekk bari nañ waaye da ngeen di borom kër gi. te soxna si du cof day téye rek sëñ Tuba nee na du cof ku yàlla bind dama naan la nikk téye dooma aadama dafa diis xajut ci cati baaraam te it wa amma bi nihmati rabbika fadis yàlla nee na bu ma la defalatee xéewal yow yonent bi dee ma sant kon ku yàlla defal xéewal boo santut danga ngaa wedd presse bi teew fii soxna Bali ne mi ngi leen di sant ndax daayira bi rek ku ko da ñor bu ngeen ko ko jëlalee nee na mi ngi ñaan na ngeen ko génne mi ngi ñaan ku ko génne ku rek na am sa télévision boobu télé buñ ko génnee na ko murid yëpp di seetaan amiin amiin li sadinatan bi kun lil janna min daari minan yaasal minna